ñoo xam ne bunt bi njëkk bi lam ci jàngaleeg bu ñaareel bi mu ne amma baabu saalisu waaye buntam ñetteel ba fa xasastu jagleel naa ko lil kalaami pour wax an tadwini sunnati ci bind giñ bind sunna fil qarni saalisi alhijri ci maas ak ñetteel gi buntam ñetteel bi daf ci jàngale maas ñetteel gi ban taxawaay lañ xam ci bind sunna yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazi maas gi nga xam ne yon tabaru mën nañ koo jàppee azha gi gën a taaru wala azha usuri al ulumi al islamiya muy maas gi gën a taaru ci jamono yiñ bind xam-xami lislaam azha gën a taaru tadwini ulumi islamiya ci bind xam-xami lislaam maas ak ñetteel gi mën ngaa wax ne lu ci xam-xami lislaam fa lañ ko bind وعلوم السنة النبوية أقم قم السنة يرنت بس الله سلام على وجه الخصوص سجدل ما أفضل لبري تقم قم دال فلن كبندة متارو فلول يوم بلول وقد جاءن تو دفناكو من بنتم نيتل بوم في فصلين سنيار قاد قدم تو جيتلنا لهما نيلن بكلمة موجزة تباس بار يغات عن جهود علماء هذا القرن تقول قولي برمقم قمي بلماس fii tatwiiri tadwini ci yokku yokkuteeg wala màgg ak bind wabtikaarim ak fent gañ fent fi tariqati taalif yi ci yoonu taalif wa tanwiim ak xeetale gañ xeetale majaalaati tasnifi wàlli taalif buntam ni teel bi ñaari xaaj la ko def waaye balaa muy dugg ci xaaj dafa indi ay kàddu yu gàtt wane boroom xam-xam yi yàlla feeñal ci maas ak ñetteel bi góor-góor ñu def ci yokk ak avancé bind sunna ak fent lañ ca fent ci wàllu façon taalif yoo xam ne ñu njëkk ñi daawuñ taalifee noonu yooyu lay jàng lay ware foofu maanaam maas ak ñetteel gi daal ñoom it yokku nañ ci wàllu bind sunna nañ ko yokkee nag buñ ci yeggee dinañ xam kon buntam ñetteel bi ñaari xaaj la ko def alfaslu awalu xaaj bu njëkk bi damantuhu dugal naa ci alkalaamu anil masanid yi ci masanid yi muy musnad fi faqatayni ci ñaari étape al ula étape bu njëkk bi an taarifil masanid xamle lan mooy musnad wa tariqati taalifa ak ña ko doon taarif ban yoon lañ doon jaar ba taarif ko wa ahamil masanid ak musnad yi ëpp solo yooyu dana ko jàngal yaa na jàngal la mooy musnad ak ñi ko doon taalif ban façon ba yoon lañ daan jaar ba taalif ak yi ci ëpp solo wa saanitu ñaareel ba dirasatu jàngat mujizatu buñ gàttal an musnad imam ahmad ci musnad imam ahmad bin hanbal rahimu yàlla yërëm ko laa yàlla taala kawe dana la jàngal musnad imam ahmad bin hanbal wax la téré bobu la ci nekk wal fasl sani xaaju ñaareel ba ci buntam ñettel ba xam nga buntu mo am ay xaj xaji mo am ay faqra fii nekk na ci xaaj ñaareel ba diraasatun ak jàngat mujizatun buñ gàttal jiddan lool an kulli waaxidin ci benn bu nekk min kutubi sittati ci téer juróom benn téer yi almaarufa yi nga xam sitta yi nga xam ne ñu ñëpp xam nañ ko benn bu nekk dana la ci wax dara <laughs> wax la njëriñu téere boobu waaw jëstu gàttal na ak diraasata jàngat fiyaa ci moom li am ren yi nga ñaari mbir al awalu mbir mu njëkk bi mooy annahaa naka téere yooyu maarufatun luñ xam la wa mashhuratun lu siiw la wa diraasatu jàngat xanaa ci moom kasiratun lu bëri la fil qadimi ci lu njëkk wala xadis ak lu yees téere yooyu téere yu xam la borom xam-xam yi wax nañ ci lu bëri téere bu nekk lam jagoog lam la ci gën a fës ak xam-xam yi wax nañ ci lu bëri moo tax moom guddalut ci xam na yeneen téere yuñ firi ci tadwin sunna kooku it wax nañ ci fa téere yooyu kutubu sitte yooyu wa saani ñaare ba anna hadil yee téere tudrasu danañ ko jàng fi sanawaatil kulliya ci ati kulliya al arbaa ñeenti ñeenti at yi ñu am ci kulliyatu xadis dañ danañ ci jàng kutubu sitta yi wala xam ne la xam-xam góorgóorlu rek la wala foofu yi yi nga fay jàng waaye xus dana jël dana commencé ak talabatu taalibe yi wala dana jël ak talabatu taalibe yi na min haa ci yooyu maa taarif ànd ak xamle bi kulli kitaabin ci bépp téere wa mu allifi ak ku ko taarif taalibe téere bu nekk danañ leen ci jox exemple xamal leen dara ci téere boobu eh, xamal leen ki ko taarif yooyu dégg nga ndax téere yooyu dañ koy jàng seen at yooyu buntam ñetteel loolu ci jàngale ama baabu raabi waaye buntam ñeenteel ba ci téere bi faqad zakartu tudd naa fii ci moom at tadwin taalif في القرنين ci ñaari maas yi arabe wal xaamis maasam ñeenteel ak juróomeel wa zalik loolu fii fasleen ci ñaari xaaj laa ko def ala waru bu njëkk bi ani tadwini ci taalif maanaam ci bind giñ bind sunna fil qarni raabin hijri ci maas ak ñeenteel gi wa fii nekk na si faqaltaani ñaari étape alula bu njëkk bi taarifun xamle mujizun buñ gàttal bi baadil kutubil mudawana ci lenn ci téere yi bind ci sunnati ci sunna fi alal qarni ci bile maas ويوم سبعة كتب جوم ياري تير ده لمي نجك جانغ ري موي ما سنك نين تيل غا تير ين تي تاريف موي صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مصدرك الحاكم أكشار هو مشكل آثار للتحاوي مغرن نكو فيري مم تير بو تير بو مصول المعجب الكبير للتبراني سنن دار قطني سنن الكبرى للبيهقي يب تي ما سنك نين تيل غا نكو تاريف bu defee dana ci dana xamle lenn ci téere yi dana xamle téere yi daal wax la ci nekk ak njëriñ léeg yooyu wal faqatu saani état bu ñaare ban kutubil mustaxrajaat muy jàngale téere yi nga xam ne mustaxraj lañ dana dana ci leeral wal faslu saani xaaju ñaareel ba ba faqatu saani la faqra ci faslu lay nekk wal faslu saani xaaju ñaareel ba ci buntab ñeenteel ba xasastu jagleel naa ko li tadwiin ñeel lañ bind fil xarni xaamisi hijri ci maas ak juróomeel téere yiñ bind ci maas ak juróomeel ba lay leeral foofu faqad sama làmbu naa la mawdu ayni ci ñaari tem ala bu njëkk bi zikru ahamil kutubil muallafa mooy tudd li ëpp solo ci téere yiñ taarif fil jami ci dajale beneen kutubi sittati ci diggante juróom benn téere yi aw bandi wala lenn ci juróom benn téere yooyu ay téere yoo xam ne dañ ci dajale kutubu sitta yëpp hmm? wala boog mu dajale si lenn ci kutubu sitta yooyu eh, def ko ci benn téere téere yooyu dana ko tudd dégg solo pour nga xam ko mu nga téere da lay jàngal téere boo gisee mu expliqué la téere bu am solo mu intéressé la nga dem jël ko wasaani ñaare ba taarifun mujizun xam la guñ gàttal bi salaasati kutubi si ñetti téere dana xam la ñetti téere ci xaaju ñaareel ba ci buntam ñeenteel ba dana ci xam ne ñetti téere hiya moom charhu sunnati lil baxawi charha sunna ñeel baxawi ak masabihu sunna lil baxawi aydan ñaari baxawi moo ko taalif ak jaamir usul ibn asir yooyu dana ko jàng wa fi baabil xaamis buntab juróomeel ba nag takallamtu wax naa ni tijaahi tadwini يونو بند باي القرن الخامس قلنا ماسك جرومين الهجري قلنا ماسك جرومين بغي تشغل لايك ني بروم خم خم دون تالفه لون لاي جانغل وجعل دفناكو فصلين نياري خاج ما حد لا تعالنا لهما نيال لهم نار بتعريف موجز تي خم لا غن غتال باحوال العالم الاسلامي تي مبير حارم الاسلام عالم مانن بيرو جولي ني خلال القرون الاربعه تي بير نينتي ماسي من القرن الخامس commencé ca maas ak juróomeel ga ila nihaayati wala boog jeex ak maas ak juróomeel ba ila nihaayati xarni taasiya ba jeex ak juróom-ñeenteel ba taqriban ci nattare ñi jafe yiñ dund ci digganteem maas ak juróomeel ga ba maas ak juróom-ñeenteel ga yooyu lay leeral foofu wazaalika loolu fi faqatee ni ci ñaari étape koy leeral wala bu njëkk bi <coughs> am ahamil mihanni ci natt yi ëpp solo wal fitna ak fitna yi gën a am yu gën a rëy daal allati yi nga xam ne waajahat jànkuwante na ko ak al muslimina jullit ñi umuman ci matale waa ahlu sunnati ak ñuy sunna xusuusan si jagleel natt yi nga xam ne nii jullit ñëpp la laaloon ci jamono yooyu rawatina ñuñ sunna yooyu dana ko jàngale xëy na loolu wàññi na seen doole ci taalib sax yenn yi wasaanitu ñaare ban juudi ulama yi ci góorgóorlu borom xam-xam yi fii muqaawamati hasil fitani ci jànkuwante ak yële fitna wal mexen ak natt yi wa ibraasi juhudi ahli sunnati ak génne góorgóorlu ñooñ sunna fi zalika ci loolu ma bayaani annahum ànd ak leeral na ñoom kaanu nekkoon hum ñoom al munqis ñooy xettali baada laay gannaaw yàlla lil muslimina ñeel jullit ñi taraddu ci la bàttarndiku nañ maanaam ci la dugg nañ fii ci moom minal bidaa yi ci ay bidaa wal xuraafaat ak ay caaxaan wa jëmee inxiraafaat ak dana leeral ne borom xam-xam yi ba musiba yi xewee jafe-jafe yi xew ñoom jug nañ ñooñ sunna yi jug nañ xettali jullit ñi génne leen ci bidaa ak caaxaan ak jéngeeñ nekko borom xam-xam saa yi fitna yi dajaal ñëwee taxawaay yooyu lañ war a lañ war a am ba ni ñu yeew amal faslu awal waaye xaaj bu njëkk bi faqat tadam mën a làmboona alkalaama wax anil kutubi lati ci téere yi nga xam ne ulli fa taarif nañ ko fi mawduaatin ci ay tem xaasatin yu jagoo maxdudatin yu limité maanaam buntab juróomeel ba fas xaaj bu njëkk ba daf ciy jàngale fi mawduaatin kon ci téere ci ci ñu fent xadis ñu fent yi daf ciy jàngale téere yi nga xam ne dañ koo taarif ci xadis ñu fent yi wala boog ci ay tem waaw مثل كتب الموضوعات الكتب الأحكام تيري جانل أتي كتب الغريب الكتب الترغيب والترهيب تيري يوين خم لنكو تعرف جانل أي تم ينخم يويلي يويدن كلير والفصل الثاني قاد نعرف عن كتب الموضوعات تيري تمي الشامل يمتل العام يمتل الشامل يدج العام يمتل يعني خم إلا أنا كتب يبلن يوح تم بني من ننتي وح دونك جانغ مثل كتب الاطراف دونك جانغ التخريج كتب الزوائد كتب مجامع مجموع نانغام ونحو ياغ منو ييب دي مي تير بو نيك دا لير يين فاصون تير لا لي سادي دا فاي في دا فاي تنك رك دا فاي لير لي نيك سي بي تير ولعل امانه بهذا البيان تبل الموجز بيد جات ما تدمنو تي لامبون كان الكتاب بي تير يتبين دنا لير المراد نانغام من عنوان تي adresse bi ne tadwin sunu sunna bi bind sunna yonent bi nasatu sosoom wa tatawuru ak màggam maanaam loolu da nga da xam niñ ci nam maanaam dana jàngal fu état bi sunna jaar ak façon taarif yi ak téere yi ëpp si ñu taarif ci yëpp loolu a jàngale séeré la ba baadu gannaaw loolu la موجزون بن قتل لتلك الجهود الخيرة نيال غرغر يو باخيوي المبارك يبركي التي خمنا قدمها جيتن نكو سلفنا الصالحين سن مغني باهن عبر عصوري جمري المختلفة يوتي في خدمة الإسلام في لقي الإسلام عموما في مكرة وسنة المطهرة أكسن سن الله والشراء وخصوصي في الجنة لدال مني أي غرغر يمكلا يباخ يجل في جمري يوتي lañ góorgóorlu woon ngir liggéeyal islaam waaye rawatina sunna loolu la andi ci téere bi rek fil xitaam yi ci mujj nag wax bu bëgg naa an unabbiha ma yeete alal umuri taaliya ci mbir yi dikk ñaan na sabab ixtisaari li waral ma gàttandu alal quruuni tisaati ci juróom-ñeenti maasi al ulaa yu njëkk yi an huwa moom mooy andoona le am baam lam yaut dégg nga Mm, delluwut fi suuri ci maas yi yi topp maanaam maasu fukkeel gi jëm kaw laa ñëw ko tajjidun ak beesal wala ibtikaarum du caagan fent <coughs> gannaaw juróom-ñeenti maas yi daanaka borom xam-xam fentuñ bu bees wa maa kaana nekkut min juhudin wa maa kaana la nekk na min juhudin ci góorgóorlu fi xidmati sunna ci liggéeyal sunna baada zaalik gannaaw loolu innama huwa nag moom bi masabati takraarin moo ngi tollook ak baamu rek li juhudi saabiqina ñeel coonaay ñi jiitoon ñi jiitoon lañ daan def rek ñoom it loolu nañ continuer di def waaye fent dara wala andi lu bees loolu amut gannaaw maas ak juróom-ñeenteel aw xidmatin wala liggéeyal laxaa ñeel ko bi suruxi si sarxa wa talxisaat ak ay tënk tënk wa taaliqaat ak ay commenté wa naxi zaalika gi noonu yooyu yooyu daal def di sarxa di tënkaat téere yi mu gën a gàtt ci andi seen xalaat ak yi demee noonu loolu daal gannaaw gi moo gën a bëri ci maas ak juróom gannaaw maas gannaaw maas ak juróom-ñeenteel gi moo tax waxu ci dara moo tax ñu njëkk ñi kenn du ñoom ñoom ñoo ñu toggal mbir mi boobu ñun lekk rek la ñu fi nekkee. innoo naka baam kaara nekk na mu nekk foofu juhudun mu xallasa góorgóorlu yu sell wa mubaaraka ak yuñ barkeel ulamaa yi hindi ñeel borom xam-xam hindi mm-hmm. baada xarni taasi gannaaw maas ak juróom-ñeenteel ga li xidmati sunna ñeel ngir liggéeyal sunna. Mm-hmm. teew nag am na ay borom xam-xam yu dëkk Hind gannaaw maas ak juróom-ñeenteel bi ñoom it jug nañ pour liggéeyal sunna wa zaalik loolu min xilaali ci biir seen ak sonne bi kutubi salafi mag ñi riwaayatan ci nettali ko wa samaan ak ak leeral ko wa gis-gis wa naxwi zaalik ak yu mel noonu wala raasi tilkal kutubi nekk na ci bopp téere yooyu alati yi nga xam ne ixtana sonne nañ bi haa ci moom al kutubu sitta borom xam-xam yi ndey kutubu sitte yi lañ gënoon am lañ gënoon jox gëdd di ko leeral rek yooyu wa kazalika na ko doon min xilaafi tasnif min xilaali tasnif yi ci biir taalif fi ulumi xadis ci xam-xami xadis al muxtalifa yu wutee wa xëy zalik ak yurul yooyu min al majalaat ci ay lef min maa ci nga xam ne laay tasuma du yaatu al maqaamu taxawaay bi li bas ci pour tàllal ko leeral ko maanaam taxawaay dañ ay taxawaay yu bëri pour liggéeyal sunna yoo xam ni du luñ mën a leeral ci téer bi xam-xamu xadis yi taarif nañ ci ay taarif yu bëri ñoom waa Hind mhm. gannaaw maas ak juróom-ñeenteel waaye loolu boo xoolee yëpp day dellu rek ci ci baamu la mag ñi nekkoon rek ñetteel bi mu ne aada dellu na lil xaramay ni ñeel ñaari xaram yi Makka ak Madina cheyun dara min makaanatihima seen daraja al ilmiya bi ka ju xam-xam baana xarni taas yi gannaaw maas ak juróom-ñeenteel bi mhm. wa zaalika loolu baadaan faqadat gannaaw bu mu ñàkkee tilkal boobu la daraja hmm. mun du xarni saal hijri diggante maas ak ñu terg ci gàddaay gi taqriban ci nettale daanaka mën ngaa wax ne dikk dippi maas ak ga borom hmm. xam-xam yi daal ci yeneen gox lañ laa nekk ñu doon liggéey Madina daal laa nekk lu bëri wa zalika loolu lu ko waral bi sababi tasallut rawafid ci sababu not gi rawafid yi not mooy chien yu xóotal yi ñaari réew yi alal wilayati ñu not kilifteef ga wal moo taxoon mm, ñu bëri ci ñuy liggéey sunna nekkuñ fa wala mu ñoon doole nasa bind la zalika ci loolu kullun képp mel ne ibnu taymiya في المجلة الثامن في مجلة دروم نيتير وين سيرين أغنيار فك نيار فك دروم نيتير من الفتاوى كفتوى والحافظ الذهبي في كتابه معرفة الأمثال ذوات الآثار الشمس الدين السخاوي في كتابه التحفة اللطيفة وكذلك أشار جن إلى ذلك تمت ابن بطوطة في رحلته شتيرن بوبدي رحلة كون ينجب ولا ننزل روافتي بنوتي نياري دكوي مورال نبايس نيم amatuñ fa doole dañ ngir baada du xul Ousmane yi nag gannaaw dugg ak ñooñ Ousmane arda Cham suufi Cham wa Misra wala Hijaaz ak kaana nekk na la moom ñoo leen juhudun góorgóorlu mashkuratu yuñ gërëm fi xamee rawaafiri ci not rawaafiri dawlatu Ousmane mhm. Ousmane yoon yi bañ duggee ba yàlla may doole bañ dugg Saam ak Misra ak Hijaaz Hijaaz mooy Makka ak yooyu suuf si Makka ak yooyu فخنا بنت رافدي في حجاز حجاز وفي غيره أكشلوا الحجاز من ديار إسلام تربيسا كما كان كم من كلي أسلاف من يلسني مك أتركمان وتركي وسلاجقة وسلاجقي مثل ذلك الموقف كم تخوى أبوه مع روافد عن روافد والباطنية باطنين في زمان سنجر روافد باطنين وتركي وسلاجقي دولة سلاجقة إتابة إيه، إيه، قملة ñooñu it fexe nañ ba not leen baat yu ne ñoom dañu laan jël affaire yi di ko firéegu nu leen neex ci baat bi aaya alxuraan nu neex ñu firéegu ci baatin dàq firam zahir bi xool baatin gu leen neex rek ñu firéegu noonu su ko defee loolu dafay dem ba mel ne alxuraan amatul njëriñ parce que arab la wàcc te arab gi kenn mënu koo dégg ndax yaa xool lu la neex sa xel mi rek nga firéegu noonu am na léegi daanaka ñoo xam ne daanaka ba ñoo baatin la ñu ñoo waye mujj nañ leen not baat ni yoon it bokk na ci ñi leen ñi xex ak ñom bon ci ay lay ba not lu bari ci ñom moy imam Ghazali wa kala nek na mi man ci ñi nga xam ne la woon juhu na ko gor lu fi khidmatu sunna ci liggeel sunna fi ma baada qarni asir ci gannaaw ma sa fukke ga hijri kulun kep min abdur Rauf al-Manawi wa Ali al-Qari wa Muhammad Abdul Hadi Sindi wa xeyrim ak ñii ñëpp liggéeyal nañ sunna borom xam-xam yi mu tudd gannaaw maas ak fëkkeel ko fi jazirati arab si jazira arab nahdatun salafi almiyatun buur ak xam-xam salafiyatun bi min haaji ahli sunna ci yoonu sunna wal jamaa ak mbo ak taxoog mboolom junne jullit ñi bi juhudi madrasati cheikh islam xaafis abi abbas ibnu wa tilamisi ak taalibam wasaayku wala yeddi cheikh islam al mujaddid ki moom nee dafay beesal diine fekk daf ko lënduma rek muhammad bin abdul wa tilamisi ak taalibam abdul wahab najd faray béjj na di feeñee comme na ko yonent waxee daf leen bañoon xanaa dëkk boo xam ni nag kay dëkk diine yonent bi fa lay juddoo kay xanaa yonent dana ñaanal waa dëkk boobu loolu rek am na lu wane waa Faali ak ay sëtam mun fi xarni saani asra hijri ci dippi maas ak ñaar faral seen woote bi daal commencé tasaaroo mu ne mhm. xam nga ne nag eh, ñii liggéey luñ sunna parce que ñun li wax si sunna fii mooy bind gi ko mag ñi mhm. bindoon Euh, jottali gi ñuy jottali njàngalam yonentu sallallahu alayhi wasallam mais ñi dañoo génn seeni xalaat yu bees yoo xam ne ni dañ ne mooy sunna yonent bi loolu du bind sunna du andi sunna ñoom seen waxi bopp la yaa ngi dégg léegi nag dafay jomm ca maas gu njëkk ga ba maas ak fukkeel ba ñëw ba ci fukk ak ñaar xalaat yi xamul kenn ku ko yoroon kon xilaat bi bidaa la parce que bu loon bidaa kon ñu njëkk ñi danañ danañ dal gaa parce que tasawuf yi bëri woon na fi mutasawwifoon yi ñu ngi fi woon ñëpp ngi fi woon mais xilaat yi nga xam ne Muhammad ñu ngi ko yor moom kooku moom ba mu juddoo yàggul hmm? mu ne wama zil naa dañu naayi si di bi fadlilaay ci ngeneel yàlla ala asaari tilka naxdati ci jeexitu yooyu buur asalafiya bi ka jóg mag al mubaraka wuñ ci ni mu ko jàppee moom yéen dama ci àndoon moo tax wax والتي يخن أعادت آه، دلونا لأهل السنة نيم مكان مكانتهم سن درجة ورفع دروس رؤوسهم سن بوب بعد أن تغر جناهم البدع بدع وأن تفشى متسارع أصحابه نيم بدع على أهل السنة نيم سنة آه، في الأعصار المتأخرة جمهور يمجي الله المستعان كان nekk na lii xalaat la waaye du bind sunna du ñu jottali wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xalaat la yoo xam muy xalaat yu yu yu yu yu yu yu doy waar yu yéeme yoo xam ni dëgg-dëgg bu tasaaroo ci alam islam bi sànq sànq julli ñëpp moom laa doon wax rek dangay def dara ñeene kéefie bi façon bi yonent sallallahu alayhi wasallam defu ko te léegi fii yaa ngi gis léegi léegi ni mu naan la borom xam-xam yi fent nañ ci taarif ak ci bind jokkale xam-xam noo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam defu ko saxaaba yi defuñ ko ñoom ñoo ko fentee seen bopp mu ne rafet na léegi nag boo leen waxee ñoom yéen fent ngeen dara eh, dégg nga waaye nag dangeen ngeen ne dafay dimbali sum na ngeen fent ko ñu ay madd xaw ma lañ koy tuddee xaw ma lañ koy tuddee maanaam du jaamu yàlla waaye ñu ne yéen seen fent ngeen fent gàmm ak yu demee noonu jaamu yàlla ngeen ci xam nga fent lañ Mouhamed Ibn Abdul Wahab xam ne moom la ñuy waxtaanee ñu ne waaye jubluñ ci jaamu yàlla kon luñ ci jublu caaxaan jurit nag wóor jurit nag wóorul di caaxaan nag. Muhammad ibn Abdul Wahab bu fekkee mën nañ di ko fàttaliku borom xam-xam seen borom xam-xam yëpp daje ñi fàttaliku benn waaye Muhammad ibn Wahab ndax jàng ndax liggéeyam bu rafet ah ñeneen la ñeneen liggéey na lu rafet ñun ñun ñuy fàttaliku yonent bi nga xam ne moom ku baax moo la baaxal ñu ne loolu bidaa la ndax lan ndax ndax li ko li ko tax kon lenn la mooy ne jaamu yàlla ngeen si jublu léegi ñoom Muhammad ibn bi ñuy defal semaine boobu lu ñu si jublu ñoom caaxaan. bu ñu jaamu yàlla lu ñu ay jullit dinañ daje ci caaxaan bu fekkee ci caaxaan lañ daje loolu mooy biddaa ndax ca daje daje daje te jubloo ci jaamu yàlla kooku mooy yorantu bu ñu dajee a daje ci luy jëriñ lislaam luy jëriñ lislaam yàlla bu fekkee Muhammad ibn Abdul gi ngeen daje pour fàttali ko jëriñu dara lislaam ah loolu biddaa la léegi Muhammad Abdul Wahab dëgg la du yonent bi sallallahu waaye waaye moo Aboubacar ku gën ndax mos nañoo dajeel dajeel dajeel Aboubacar benn semaine ndax mos nañoo dajeel Omar benn semaine ndax mos nañoo dajeel Ousmane ibn benn semaine ñoo ñoo gën maam Imaam Abdul Wahab fuuf bu fekkee ku dul yonantu mën nañ koo dajeel waaye yonantu moom kenn mënu koo dajeel bis ah bis moom kenn mënu koo fàttali waaye ku dul yonantu mën nañ koo ko lu teel ñu fàttaliku saxaaba yi bu fekkee lu baax la lu ñu war a def la ay jàngat lañ ci bëgg a jëlee ci saxaaba yi la ëppee lu tax defaluñ ko saxaaba defal Muhammad xam nga loolu mooy caaxaan mm-hmm. moo tax ma ne ñi ittanaaqud dal lañ fi nekkee hmm? waaye nag même boo génnee foofu sax ne Muhammad ibn Abdul Wahab dañ dañ ko dajal journée pour caaxaan du jaamu yàlla kon loolu tax mu dagan nekk caaxaan moo tax mu dagan ñun nag liñ jublu jaamu yàlla ci euh, fàttaliku yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu tax mu nekk bidaa su fekkee ñoom loolu la ñu loo jublu jaamu yàlla bidaa loo jublu caaxaan dagan waaw léegi xanaa nag taif téere nag ngir jot nit ñi sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa moom kay jaamu yàlla mm-hmm. waaye lu tax ñu koy defee nu ko yonentu defee wutoon xanaa yonentu da ko xamutoon xanaa dañ ko xamutoon xanaa ñoom dañoo lu tax ñu defee ko façon boo xam ne yonentu defee wu ko moo tax may la diine waxa bi diine diine la diine xel mu waay la dégg كان نك لكل نيل من الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الباني حفظه الله جهود طيبة غرغور يتاي ومفيد يام في هذا القرن بلا ماس في خدمة السنة تلقي السنة وعلومة خم خم السنة تحقيقا تقهور لو وتخريجا الجنة تخريج أحاديث وغير ذلك أما الباني دا يدقني أن حديث نصحة هو الباني الباني ويرل نك الباني منو ويرل درا حديث بدفع فيكم وير بفره albani ne wér na wala boog ñu fekk mu lot albani ne lot na waaye xadis bi kay ba muy wér yàgg na borom xam-xam yi ñoo ko fi jiitu ñoo ko wéral yàggut kon borom xam-xam xam ne fi jiitu woon ñoom ñooy ñëw ne xadis bi ñu indi xadis wéral ko albani ñëw ba ànd loolu wala ñu dàq ko albani dàq loolu albani nga xam ne diggante mu yonente mais siècle siècle la xam nga ne kooku mënul wéral dara wala mu dàq dara bu fekkee aussi jamono bi bind xadis dañuy bind xadis indil ñu ko ba pare rek mu commencé li ñu tuddee wax te li mokkal ci xadis sax dégg naa bëriwul te te kuy wéral xadis wala dégg loo tax dafa war a lu bëri daal man daal léegi par par loolu ci diine ji jaaxal na waxee zaal ak loolu juróom beneen mooy ànd man kataba na ko bind fi tat bind ci bind حديث وما يتعلق بي أجل أجل قبل جكما اختصروا قاتل على كرامك وعلى ذلك شلول في القرن الأول في ماسك جكما نعم نمص بنا شتر بين حديث بين حديث دين يقول نبين حديث ماسك جكما وبعض من يعني يتواصل آيات الله قليلا لنه إلى القرن الثالث بماسك نتر يعني ولن نبين سنة في ماسك نتر ما الاختصار عند قاتل في ذلك شيء شيء شيء لولو واكثر من توسان يغنى يات الفاد في ما تلانت عليه كلمه يا الشيخ ابو زهر في كتابه شتين الحديث والمحدثون لكن وانا ما سلكت صوبنا من حد يون غير الذي سلك الرجل ينوم صوب في كتابه شتين وذلك لاني لم راعيت سموان تلك المنهج المقرر يون من ليرل في الكلية في كلية حديث قدر إمكاني سمكن تركتا ما أم لا خم نمو أجو شمال المتبر لا عندي من yaatalu moo ba génn mastel bi tuuti wa asalullah maa ngi leen yàlla tawfiq njub wa sadaada ak gindeeku li maa yuxibu ci lim ba weer daa te gërëm ko wa katabu bind na téere bi Mouhamad bin Matar Azahraani fi madinati nabawi xarasa yàlla ko wutal laa yàlla si xaamis asara ci atam ci fukk juróom min shahra bi awal ci atam min ami alf wa min hijrati Mustafa ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa 1412 ci gàddaay gi ci la bind ko defee loolu moom mooy kii bi maanaam daal muy jàngale ci matière yi muy jàngale ci mu def tamhid bu ndaw ne qabla an asra njëkk may soobu fi bayaani abwaabi wa fusuli hatal kitaab ci leeral bunt ci bi la téere ak xaaji bi la téere uhibbu bëgg naa anu mahida ma lay taayal bayna yeday sama kanam bayna yeday ab ci diggan ci njëkk ay gëstam mawdaat yi ak ay temam bi shari onwaan ci leeral ci sara onwaan bi عنوان بي مولين تدوين السنة النبوية دا فاي لان لان موي تدوين لان موي سنة فتدوين في اللغة تقييد التفريق موي تنك تقييد المتفرق تنك لو تقلقو وجمل متشتت الدجرة لتقلقو في ديوان انت اب كيت في مثال ومنو بوغس جمو صحف دجرة تيري في كت كتاب انت تيري كون تقييد موي دجرة رك تدوين موي دجرة رك تدوين موي دجرة هو من فارس وف بعد بفارس mu arabun buñ arabal kon ci cosaan bu arab dañ ko mujj boo arabal ko wa fi istilaahi si jëfandikoo ñooñ xadis yustaamul dana jëfandikoo ak tadwin bi maana tasnif yi ci maana taalif wa taalif ak ak ak ak sos maanaam taalif tadwin dañ koy wax na mu ci taalif amma sunnatu kon tadwin mooy dajale wala taalif amma sunnatu fi luxati ci luxa fay moom asiratu mooy doxalin wa tariqat ak yoon kaana nekk na xasanatan di lu rafet aw xibaatan wala lu woon lii mooy sunna mooy doxalin daal bu baaxee baax na bu mënee baax na bon na wa minu ci la jógee xawloo salaasa waxu yonent bi man sanna ku doxalal ku tëralal dara fi islaam ci islaam sunnatan doxalin xasanatan bu rafet falaw ajura am na tiyaabu bu a man amele bia ak tiyaaba ki ko jëf min baax di ci gannaaw doxalin bu rafet bokk na si téere yiñ taalif gannaaw bokk na si téere yiñ sarxa gannaaw bokk na ci école yiñ tëral gannaaw bokk na ci gàmm yiñ def gannaaw ngir fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci madahib yi ñu sos gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga xawaayid yi ñu tëral pour tënk xam-xam yi ak mm, dégg nga tasawuf yi ñu tëral pour yar jikko yi yooyu yëpp ci doxalin bu rafet la bokk xam nga bu fekkoon ne affaire bi li yonentu jamono yonentu rek yonentu wax ne ku doxal ci islam doxalin bu rafet dañuy am tiyaaba ak tiyaaba ñu la su topp gannaaw moo ko doon def ko yow koy dara waaye képp ku def lu baax tama xam lay ci sunna yonent rek yow nga ji ko jëfandikoo nit ñi topp la ca da ngay am tiyaaba fii doxalin lay firi wa man sanna ku doxalin fi islam ci islam sunnatan doxalin si atan bu ñaaw na bu doon sunna su yéen doon sunna su ñaaw kon yo lii sa doxalinu bopp la bu rafetee nga am tiyaaba gi bu ñaawee nga am bàkkaar bi waaw léegi saay-saay yi nga xam ni xamuñ dara dugg ci diine ji di yàq rek hmm, yaa ay musiba gi man léegi sax man nit ñi dama yaakaar ne seen xel yi xanaa ko lem toog ci nit ñi ñëw rek nax leen wax leen ne léegi da sëriñ boo xam ne walaay bu doon xale la yow bu la ñëwalee ah loo def lu may andi téere bi ma toppal la loolu da nga koy wax waaye wax dof yi muy wax nii ci mag bu doon ndaw la la ko waxee doo ko faale sax léegi nag bu demee ba am xaalis am mbooloo rek di ne moom ku war a jàng te bu doon jàng sa njàng ma dana të <laughs> ndax xamatul nit ñi dañ koy topp di ko def sëriñ man affaire boobu jaaxal ku doxalin ci islam doxalin bu ñaaw kaara nekk naa li di ko ba ko wisru man amila biha ak bakkaar ku ga min xëyri an yéen xusa ci lu muy wàññi min awzaarim seen bakkaar si an dara doxalin bu ñaaw ku ko def yow ak ñi topp yëpp yéenay bokk bakkaar ba te du sa bakkaar bi moo tax nag bu leen yaakaar ne ñu fi jug woote ay ay ab caaxaan ci mbooloo buñ de buñ bu fekk mbooloo maa ngi sax rek bakkaar baa ngi leen topp mhm. fekk ñi ngi am na ñuy topp mbooloo moom rek ñoom ñi ngi ñu leen envoyé bakkaar dee ba pare mel ni kuy dund di tooñ yàlla mooy sos lu ñaaw senegal na ku dee baax dana gis ku nekk ci lu bon ba pare génn àdduna gaa ah, waaw kii mooy xalifaam kii mooy naan te nekk woon ci dara du ngeen tas mbooloo ma ndax waa ji xam jàmm nu mu gën a bëree rek mu gën a yàqu de wa minhu bokk xawlu Xaalid bin Zuhayr al-Huzali فلا تجزع من سنة أنت سرتها فأول راد سنة من يسيرها فلا تجزع بل جاق من سنة تدخل بوخن أنت سرتها ياكو دخل فأول راد كي نيكا جرم سنة دخل من يسيرها موي فوق دخل كلا يومي دف دارك ياكو ورا جرم كون سنة فوق دخل لا فيل ومن معاني أبوك نسي معناها سنة في اللغة في اللغة أيضا بتاي حسن رعاية رفتك سام والخيام أن تخفي على شيء شدرة وذلك من قول عرب تيوح عرب بسنة سامنا رجل جلم قبله جلم ميدا إذا أحسن غرفة الرعاية أقسام ما فيها مكتفي عليها كم وبلي سنا أي شيء جفن يكون يون فتنك ولا يون يون يون حديث تطلق سنة درن بوال سنة ويرادو ينام بياتي مو عند الاستلاحات جفن يكون يوتي درن كو وحنا مشيرو بري وعلي نك استلاح لا يرون تسلا هذا موت دي سنة كم نيجي قال ابن منصور وقد تكرر بامنا في الحديث حديث بذكر سنة تد سنة ci hadis yi am na yàlla yonent bi tudd na fa sunna lu bëri wa maa tasrafa ak la soppeeku a minaa ci sunna googu wala asul lay cosaan fii ci sunna a tariqatu mooy yoon wa siira ak doxalin wala doxalin bu baax boo ko fentee ci lislaam am ci tiyaab bu bon nag boo ko ci lislaam am ci bàkkaar ak kala ci loolu wane na foofu nit ñi fentul dëpp ak seen waaye nag du wuteeg njàngale mi yonent yàlla Muhammad ah, damay kag daal wallaahi dama doon bébét sax kenn si ñoom ko am xam-xam ñëw ñëw jubbanti ma bu fekkee li mu yore njub la waaye koo ci wax rek xeeb koo ci wax rek xeeb ko ndax da xam ne kii waxut dara fekk ay nit ñuy def lu baax nga taxaw na leen bi daal hmm. te yow li ngay def yëpp yonentu defu koon maanaam yow li nga tuddee sunna sax yonentu mosu ko tuddee fa hmm. xaaloo koy mooy sos ci xam-xam hmm. ñëw ne lii mooy sunna ana xadis bi ma ne yow li nga wax ni mooy sunna nga naan ma diwoo ko wax diw borom koom-koom sangam moo bu ma la waxee borom koom-koom sangam moo ko wax nga ne ma nga ne ma kañ la lislaam mel nii hmm. waa sàmb bu lu ñu wax baax na waa démb lu ñu wax baaxut kañ la lislaam xam kumba mu xam ndey kumba mu xamul ndey hmm. yow ñëw rek créer bopp ne lii mooy sunna hmm. xam nga da ngaa xool nit ñi si sunna ñëwee luy sunna nga naan sunna mooy nangam nangam nangam nangam nangam léegi yow yow léegi wax ñu fu yonent wax ne loolu mooy sunna li xool nit ñi da ne lii la léegi li ngay xoo nit ñi wax ñu fu yonent ne lii la ba pare su fekkee xamoo loolu nag kon yow la ngay xoo la ngay xoo nit ñi loolu biddaa la ba pare bàyyi nit ñi dem jàng wasa utliqat buñ ko boolee fi charin si charia fenema yuraadu biha danañ ci bëgg ma amara la digal na bii ci ma anam yonent bi salaa sallam wa naha mu tere na anu ci moom wana daba mu woote ilay jëm si moom xawlan ci waxu fen ak jëf mi maa lam yéen teg ci loo xam ne tudd bii ci moom alkitaabu aziz téere bu tedd bi bu ñu waxee sunna wala xam ne yonent bi salaa sallam digal na ko wala mu tere ko ولا مواتي وفق جف ولهذا لي يقال إنه في أدلة الشرع إن شتكت الشيء الكتاب والقرآن والسنة والسنة أي القرآن والحديث من القرآن والحديث بنا الكتاب والسنة مع القرآن والحديث وقال إمام شاتبي إمام شاتبي أنه يطلق درن بوي اللفظ سنة بار سنة أيضا بتاي في مقابلة البدع سيجا كارلوك بدع لن يوفي سنة مويدود البدع بدع ملبو سنة فيقال اني وانا فلان من فلان على سنة الموت سنة اذا عمل بجفي على وفق ما عمل عليه لو دبوا لنا خمنا جفنا كو النبي صلى الله عليه وسلم ويقال اني فلان من فلان على بدعة الموت بدعة اذا عمل بجفي على خلاف ذلك لو تكلو يونس دون دف ثم قال مو ايضا بتي ويد لو قدرن بويا لفظ سنة بعد سنة ما عمل عليه صحابة الله صحابة دون دف وجد فكر ذلك في كتاب سجيري امن يوجد ولا فكر saxaaba yi nañ doon def moo xam gis nga ko ci téeram gisoo ko ci téeram saxaaba yi lañ ko doon def rek dañ naan sunna yaa ngi dégg de yi daf lay jàngal ne du lépp sax moo moo la ñuy jot bëri na xam-xam yoo xam ne nii ñu bëri jotuñ ci li kaw nii ngir nekk ittibaan di topp li sunnati ñeel sunu soo xam ne sabata sax na indoom fa ñoom lam tulqal lam tunqal toxaluñ ko ilay naa jëm si ñun mu ne saxaaba yi bu ñu def dara rek dañuy xam ne loolu sunna la soo xam ne dafa yegg suuf si ñun rek kon kon xam nga ne xam nga ne ñun de léegi xew si ñun yàlla mën na ko xamal ñenn ci ñu baax ñi loolu waral mu jëddit di am moo tax moo tax boo amee wëlle yàlla bu baax dafa attention de man li may wax nii xam-xam rek la te nag alxuraan ko sant topp leen yàlla ak yonent bi ulul amri mhm. kon ulul na lu ñu leer la loo xam ni yu bëri mënuñ ko leer la yaa ngi dégg de yàlla dana yebal ci téeméer at yu nekk mu jëddit kuy beesale nañu seen diine kon mu dana am leer la loo xam ni du ñëpp ñoo la ko mën a leer la tax boo amee wëlléeb bu baax jàppal ci bu baax moyal bu baax aw ijtihaadan wala góorgóorlu muj bu buñ dëppwaale ci moom minum ci saxaaba yi aw min xulafaayam wala seen xalifa mu ne boo gisee saxaaba di def loo xam ni gisoo taxi bi da ngay jàpp ne sunna la soo jotul rek wala nga jàpp ne ñoom dañ cee dëppoo wala seeni i xalifa dëppoo si te jotoo ci ma ne ko ah léegi nag lu yonent defu gars yi def ko lu tax ma ciy jàpp di defal njort mu ne la xaw li ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aleykum maa leen dénk bi sunnati sama sunna wa sunnati xulafaay raasdiin ak sunna yi ñi ma wuutu te jub almahdi yi ne ñe de ñoom jubal kon ña wuutu yonent bi moo tax yonent bi waxul waxul sunna Abubakar wala Usmaan Ali rek ñi ko wuutu la wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal la moo tax xadis dañ ko war a dégg xulafaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy borom xam-xam kon doxalinu borom xam-xam yi ak doxalinu yonent bi ci ngeen war a topp ndax doxalinu borom xam-xam yu maandu yu ragal yàlla yi ma ne wute wut ak doxalinu yonent sallallahu alayhi wasallam benn muy lu yonentu doon def wala lu yonentu gërëm teew xeg si wut ci yow ñoom ñu di ko def ndax ñoom xam nañ loo xamut wala sama sëriñ ba sama soppe ba xam naa gars yi nag ñu bari mën naa ñu toog too rek kii nu ma sëriñ da ngay nga tudd bàyyi hmm? gars yi léeg-léeg loolu lañ la wax loolu lañ de waaye bu si bu si tudd bàyyi xaw xam ku ah, na wax dara bu waxee dara ne ah ku sikk ci lii maa ngi gis fu nit du gisee maa ngi dégg fu nit du déggee ay waay yaa rabbi yàlla nga ma rey ci bëgg ko te pang ma ci mbooloo. muy Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu ci xalifa yonent bi bokk de mm. maanaam doo xam lu mat ba pare di jéggaani ñoom li ñu am doy na dee leen jàpp sama sunna ak sunna xulafaa raas dina ñu jóge wa baan an istaqaraat gannaaw mum saxee al mustalahaatu lañ dëppoo ci baat yi wa qaada ñu defal qaayida al ulum islamiya asbaa ci la mujj nag li laf si sunnati ñeel sunna mafhumaat na yeneen dégg-dégg yaa ngi gis mafhumaat na yi fu ñu ko jëlee ci ko jëlee wa mustalahaat ak yeneen dëppoo jëlee yu bees mm-hmm. yaa ngi dégg de léegi nag gannaaw sunna moom lañ ci xamal mooy doxalin dëgg la lii la ñu ci doxalee doxalee ko baax na waaye léegi dañoo jël sunna fii réewaat ko neneen min ha bokk na ci maes kuro la tudd na ko al muhaddisuuna ñooñ ñooñ xaddis fi kutubim seen téere ñoo ko tudd seen téere de ne kullu maa usira lépp luñ nettali an nabi si yonent bi salaatu min qawlin moo xam wax la aw fi'lin wala jëf aw taqririn wala ñu def ko ci kanamam mu nangu aw sifatin wala muy meloom melo yaramam ñu ne loolu mooy sunna ñu ne loolu mooy ko yonent wax ah bu lu tax ci diine yàlla ji loo xam ni yonent jàngalewul ko xanaa yonent jàngalewul yëpp ñoom ñooy wax ne yonent bàyyiwul dara ñu war a xam lu mooy leeral na ko li ñu war a li ci ëpp mooy sunna lu tax yonent leeral lii mooy sunna su fekkee ñoom mën nañoo dëppoo dara ci xam-xam fireeku nu leen neex di ci xoo nañu bàyyi ñeneen ñi ñu am seen i dégg-dégg ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa yazkuru la tudd na ko ulama usul fiqi borom xam-xam usul fiqi ne kullu ma sadara lépp lu jugee an nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin ci wax aw fi'lin wala jëf aw taqririn wala wala lu mu saxal lu mu wax ci kanamam mu nangu ko min maa ci nga xam ne est-ce que dana yéwén an yakuna mu nekk dalilan di tegtale wokk min charia ñooy atteb charia loolu mooy sunna ñii sax ñoo te ne parce que yow da nga ne da ngay xoo nit ñi si sunna ñeen luy sunna nga ne wax yonent bi wala jëfam wala lu ñu def ci kanamam mu nangu wala melom léegi dañuy xoo nit ñi ci melo yonent bi ah dañuy xoo nit ci melo yonent bi bi bët yi dafa mu amoon faas loolu ci xooyee nit ñi daa ñii moom lépp loo xam nii rek xew na ci mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu mën cee génne atteb loolu mooy sunna ما يذكرون تدنق الفقهاء برمكم الفقه في كتب سنتير في كتب سنتير ينين سنة ما في فعل ثواب ما يقوم دفك أمن تيابا وفي تلك المكان سبايكم ملامة يدانك وعتابة أكتص لا يقاب من دلن بغر لو أخنا بوك باين يد الواي كم دلن بغر بغر في أم تيابا لما سنة أو ما أمر والو أخنا دقل لن بيش مم أمرا دقل غير جازمين بوك من دوغونج لن دقل وانك بوك باين دوام بكار لما سنة wa jumlatu tadwin sunnati jumla bi nga xam ne mooy wax ne bind sunna min baabi idaafati maanawi idaafa maanawi ci la bokk alxaqiqiya illaa fa dëgg-dëgg la almaxda gu sell idaafa maanawi ak idaafa lafziya dafa am loolu ñuy jàng na ko xam nañ ko wa zaalika loolu lenn idaafati ndax laaf gi fii ci moom bi maanaa laam maanaa laam la ay tadwinun li sunnati wa innaa naka moom muassilatun dafay jeexal fi mudaaf ci mudaaf ga taarifan dafay xamle maanaam haytu udifa buñ ko laafee ila maarifa nakira boo ko daafee ci maarifa dafay mujj nekk maarifa dafay nekk taarif dafay nekk lu ñu xam ne idaafa maanaam yow fakk sa ba fàggu na taarifa xam ne min idaafati ci laaf gi ko laaf ilayha jëm ci moom maanaam tadwiin dañ ko laaf si sunnati léegi tadwiin dafay nekk maarifa te bu du woon la lii nag jot ma ci yaatal boo demee ci naxawaat jusaan yi yaatal eh, nañ ko fa bu baax a baax la mooy idaafa maani ak la mooy idaafa lafzi la ci aju wallahu alam أما جملة نسبته وتطوره فتقدم جوتنا الكلام وعلى ذلك شروط في مقدمة مقدمة بي وحنا نشروط وقال في إيه؟ لي مقدمة التمهيد آه إن شاء الله ربي مورد بوتي بنتي الباب الأول مكانة السنة في الإسلام وعناية السلف بها موي بنتو جاكبي زين كو جانغ بن يوني نورد الإسلام وستانتو ما توفيقي إلا بالله علي توكلتو وليونيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته